eskey eskey eskey ceerno wi ɗum ɗo inchallahu taala o wi ɗum ɗo ko alhaali haɗi ɗum waɗde ɓaade noon ko alhaali haɗi ɗum waɗde gooto e meeɗen fof e nder ɗiɗo jammaaji jeenayi ko fotannoo gollude e dewe allah ko janganno alqur'ana e ko fotanno jangude e salatul fatihi e sayfiyu e julɗele ɗe e dendagal wadifaji ɗi dendagal dewe allah ɗe goto emen foof dendagal dewe allah ɗe fonno wadde e nder ɗiɗo jammaji jeenayyi ma allah lomtinan goto foof malayka ɓurɗo mo wawde gollude ɓurɗo mo wawde ñeññude ɓurɗo mo wawde laɓɓinde ina golla ko fotanno gollude e ɗiɗo jammaji jeenayyi ɗi fofoof kadi so gasi baraji ɗi jomum o nawa nee na ku nekk ci ñun la mu ci ñeen juróom-ñeenti guddi yi ñu fasoon yéene def ko ci daakaa bi ku nekk ci ñun la mu naroon def ci jaamu yàlla la mu woon la mu waroon julli ci ci ci juróom-ñeenti guddi yi la mu waroon jàng alquran la mu waroon jàng salaatul fatixi la mu waroon def wadifa subaak ngoon la mu waroon jàng xisbu sayfi ak yeneen ñaan ya ñu waroon def ci daakaa bi yépp comme que ngant bii moo ña def ndaka fekkoon ne yàlla ku xereñ la te itam aji maya la te ku mën a maya la ku nekk ci ñun la mu waroon def yàlla dina fa wuutal malaaka malaaka boo xam ne moo ko mën a def moo ko gën a mën a def gën koo mën a sellal gën a mën a tam jaamu yàlla malaaka boobu wuutu ko ci jaamu yàlla ci fan ci ñeent ci juróom-ñeenti guddi yépp te tiyaaba yi nekk ci malaaka boobu di jaamu yàlla fekk borom moo koy moom loolu nee na ku nekk ci ñun yàlla dina ko wutal boobu malaaka loolu nag sant nañ ko yàlla bu baax a baax o wii ɗum kay ndeke so so wayi noon ndeke ko ɓeydoragol moƴƴere kono wona ustoragol moƴƴere nena sumele noonu kon nag lii fi am du du wàññeeku ci mbaax de déedéet waaye yokkute la ci mbaax الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته الفاتحة صلاة الفاتح